ci loolu jàpp nga ni euh, yi lépp audio mun na nekk preuve bu dëgër bu nga xamante ni juge bi mun na sukkandiku waaw am déet am mm. na ñu gis ñu ñu gis ni euh, audio euh, du dara ci kanamu juge yan audio yii Baye Mbaye MC yi ni jox na il faut faire une relation man dama lay wax techniquement dama leen di dimbale mm-hmm. ay audio yu Baye Mbaye MC indi quels sont les faits lan la ñuy toppee Ousmane Sonko loolu la ñuy wax Adji Sarr moo dem gendre gendarmerie daal ni kii dafa àgg ci man te neexuma loolu nu ko yoon tuddee viol la ko yoon tuddee on ne poursuit pas Adji euh, Ousmane Sonko pour des déclaration de wala lii Adji Sarr wax wóorul on poursuit Ousmane Sonko wax naa la si Adji Sarr il est établi aujourd'hui que ñoom am nañu diggante si Adji Sarr am ak moom diggante fu kenn fekkewul yeewu suba daal ni Ousmane Sonko sama far la woon tëdd nañu mille fois mille et unième fois bi daf mu forcé loolu mooy viol. donc ay audio ay vidéo yi nga xam ni ça ne ça tourne à la périphérie. ci njëlbeen Ousmane Sonko dafa waxoon ni lu ni mel ab complot la euh, orchestré par ku mel ni ñoom daal Diallo et autres ci audio bi ñu dégg ak Sarr di ci lim seen tur foofu laay waxee. waaw voilà. loolu Ousmane Sonko ça ne tue pas le viol. d'accord Ousmane Sonko day jël loolu dem porter plainte contre contre ñi muy wax pour complot mais lu tax pas le dama lay dimbale encore ki nga xam ni yow yaa doxal sa bopp dem kenn possédé la kenn drogué la kenn yeewu la nga masku encagoulé wu mel ni kuy kuy kuy nu mu tëddee encore euh, raxaskatu mbedd dem dugg fi nga xam ni dara fekk na la fa mais c'est toi c'est tu tu tu as donné l'occasion à ton adversaire de te violer ou à celui te comploter yow yaa def ba noppi complot fekk la dama koy dimbale moom ci boppam. mais nan la ñu mën a jëlee nit comploté ko ci loolu su fekkee ni fi mu dem moo fa yóbbu boppam nangu di moo fa yóbbu boppam li mu seq ndaw si moo ko lijjanti leer na Sénégal yi yëpp ñu bëgg wut ay ay vidéo ay audio pour dindi ko ci loolu ça n'a rien à lii loolu su fekkee am na valeur du am valeur par rapport ak viol bi xam nga lu muy am valeur par par rapport diggante contentieux bi am entre ñi mu tudd ak moom moom mu tuddee ko complot mais amul rapport ak ak viol bi le viol il va y répondre parce que viol fee la man munuma nekk ay nit ñu nekk fële di jaxasoo di jaxasoo di jaxasoo suñu yemoon ci comploté que mais kon kenn du tëdd viol mais les faits qu'on a rapportés en saisine ay faits la yi nga xam ni kii jàmbat dafa ni dafa tëdd ak man forcément ñaa yor ñaari revolver du loolu la ndaw si wax hmm. dafa tëdd ak man forcément yore ñaari revolver bi muy ñëw nii la demee nii la demee naa la demee Mais où est le problème Pourquoi on veut mettre tout cela pour noyer le poisson Et c'est maintenant eux de décider. su jaxasoo foofu juge bi dafa war wax non lieu moo tax sorti Adji bi am solo quand eux ils veulent que juge bi wax non lieu mun leen déedéet man tribunal la jëm pourquoi on veut argumenter autour de leur non lieu et on ne pour dire mais pourquoi Adji Sarr dit je veux aller au tribunal sur quoi elle se fonde est-ce que dëgër na mais non on des arguments pour dire puisque Mamoudou Diallo nangam sangam puisque Baye Mbaye MC et puis yàlla na ma yàlla baal c'est des gens ci ordre bi ñuy intervenir man de ëppale naa sama bopp di leen déglu foofu man damay nekk ku ki nit ku mën a choisir fi may taxaw ci affaire bu nekk mais je te garantis une chose déglu Baye mbay MC ak ay si listu seize personnes di ci wax yow laa rus moo tax nga may wax ma la koy delloo mais da ngay da ngeen di xool rek xool rek wax ju mel noonu wax ju doy waare noonu ñu mën ko teg ci réew bi teg ko ci ba réew bi yàqu na mm-hmm. réew mi yàqu na di ci tudd ay nit mm-hmm. te nit ñooñu fekk loo leen fenn nga bëgg a tudd pour defendre ki nga xam ni moom moo demoon njaaloo ji mm-hmm. alors ci loolu la syndicat le syndicat autonome des médecins du Sénégal di SAMES ñu exiger tamit euh, à ce que état mun a euh, garantir euh, sécurité ki nga xamante ni moom mooy Alfousseyni Gaye kooku position de principe suñu deful noonu du ñu respecter principe bi quand c'est l'institution ki réagit du ñu ils n'ont pas à à juger mais benn médecin bu nekk boo ci jël boo ko laajee ci gëm-gëmu boppam dina leen waa ji jarul dara saay-saay la mais quand c'est le syndicat ou je ne sais pas quoi leur organisation kooku ci principe lay wax comme waa ji yuuxu na par principe dañuy dem taxaw ci gannaam comme les vous vous avez fait avec Pape Alé Pape Alé qui assassine la République, qui agresse les institutions. Malgré ça, toute la presse se met derrière. Moi, j'accepte. Vous avez le droit de le faire parce que c'est un journaliste. Mais vous n'avez pas le droit d'imposer aux gens que vous avez raison de le faire. Vous avez le droit de le faire parce que Yin, c'est corporatiste. Tout à fait. Waouh. Mmh. Mais vous ne pouvez pas me dire que Limouach Diadouna, parce qu'il a fait du banditisme dans le journalisme, en essayant de tout faire pour dévoiler des secrets. Il y a tout Sénégal, fi mbóot am ci réew mi. d'accord kon nag euh, euh, commissaire nag bëgg naa am également sa gis-gis par rapport ak euh, tey xam nga jamono gi ñuy àttoo ni man ak yow. xam moom njiital réew mi président Macky Sall mu nga foofee ca Tambacounda. waaw ngir ñeel conseil des ministres. donc nag daawoon nañ ko def ay temps sax ñu daal di ko woon dakkal reprendre nañ ko décentraliser li nga xamante ni moom mooy le conseil des ministres démb nag bu muy ñëw foofee ca Tambacounda ab mbooloo bu takku takku daal di génn teertu ko moom président Macky Sall lu mel euh, ban gis-gis nga ci am wanee na ni peut-être président Macky jeexagul euh, ci xolu nit ñi wala boog dafa am ci gox-goxaan yi nga xamante ni ba tey moom moo fa am euh, teg ñoom doole. xam nga phénomène yu mel nii da koy jël ci li mu doon président Macky jeex na wala jeexagul c'est pas ça la question dama leen wax ni leen yéen presse bi de manière générale depuis. les années quatre-vingt di ngeen aadawoo ku yore réew mi baaxut oui du du du ŋàññi bu ma leen di def tey être journaliste taxaw wax dara ci président de la république baaxul moo gën a yomb wax dara ci Ousmane Sonko dama fi yuuxu ba sonn pour que nit ñi jël Ousmane Sonko teg ko ni que hé lii nga wax nii lu tax loolu déedéet moom day wax rek dem yoonam ñu nangul ko ko. et puis day woote wax dem yoonam def live woowul kenn wax li muy wax ñu woo commissaire Keita woo keneen woo keneen woo keneen woo keneen woo keneen leen loo xam ci li Ousmane ko wax keneen def ko la même chose donc tey dafa jaado président de la république bu tolloo fii ñu gis lan la fi def su ngeen ko gisul suñ ko gisul ñi nga xam ni ci seeni tànk la koy def ñu daan dox ay kilomètres du ñu am gis oto mu indil leen yoon ñi daan béy du ñu xam fu ñu jëm ak seenu mbéy mu indil leen yoon mu indi loolu def yeneen réalisation def yeneen réalisation créer ay université créer ay école créer ay hôpitaux ci seen wet à la limite génne leen ci isol euh, isolement bi teg leen encore ci biir centre bi soo dëkkee Goudiry yow ak tey ki dëkk Tambacounda yéen a bokk soor te ki dëkk Tambacounda désormais à cause de l'état des routes moom ak ki nekk Dakar ñoo bokk soor ce rapprochement des population des centres d'intérêt de la vie de la République mais moo koy indil nit ñi gis naa ci ay nit ñi nga xam ni dañuy dawal seen moto am seen pousse-pousse ci yoon wi ni ay la yéwén lii mosu fee am am na fi c'est ça qu'il faut lire comprendre lu tax nit ñi nangu ci biir ñi nangu am na ñoo xam ne nangu rek la du def mais fi ñu jógee dafa sori parce que ci ŋàññi la ñu nekkoon ci bañ gu métti la nekkoon ñu manipuler leen ba ñu feebar bugguñu dégg mais dafay am li nga xam ni dafay fatt bët lu baax dafay fatt bët lu rafet dafay fatt bët surtout nag bu fekkee ni yow da ngay bañal ki ko def da nga koy bañal day fatt bët te su faddee sa bët lu mu lay indil mooy su ñëpp dawee nga daw topp ci gannaaw moi je crois que ñu laaj li gis a gis-gis parce que tey euh, loolee dafa bokk ci actualité bi euh, te it euh, comme suñu concept moom da di dañuy war a wax ci. ci actualité voilà ci actualité bi. donc mm. fallait que ma laaj la ci sa gis-gis rapidement alors sa a été nag un plaisir commissaire bokk yow plateau bi di la bàyyi nga tàggatoo le mot de la fin. mais sant yàlla bu baax a baax man lii sama mis sama message ci askan wi dama ni jot na ñuy wax fàtte woon naa ko sax xool euh, waa bennoo nag nee nañ lu ni mel dafay saboter sunu sunu sunu institution parce que ku ne xam na ni euh, le message euh, bi nga xamante ni moom le président wala wala délivré au soir du 31 ñëpp dañ koy xaarandi buñ ko bëggee nag saboter ak ay yëngal bool je je préfère prendre ça man du ma waxal waa bennoo je préfère prendre ça avec beaucoup de hauteur delloo leen ko ñoom gis nga nit lu waay def sa bopp boo foogee ni yow fi nga toog di nas sa ay nas di dugal sa ay pexe di wut lu bon li nga xam ni mooy jaxase sa réew moo lay tax jot ci nguur wala moo lay tax a tedd da ngay nax sa bopp xaar ba lii am nga dajale sa ay motif concert de casserole suñu jógee ñu def nii pour lan parce que da nga def nguur te def nga fi ay ati ati ati ati at aujourd'hui il est clair que l'opposition toute entière du Ousmane Sonko rek de toute entière Khalifa Sall keneen ak keneenoo ils n'ont pas de projet amuñu lu ñu wax sénégalais yi te il est clair que buum bi mu ngi leen di rëcc parce que Macky Sall raw na leen pendant que eux ils étaient en train de faire dans le discours raw na leen lu ñu koy dabee léegi ay consort casserole pour maintenir que fi nanu dem ils vont rencontrer les Sénégalais sur leur route leneen amoon na fi leneen amoon na fi nanu dem à l'épreuve su leen neexee ñu def seen concert de casserole mais qui comprennent que ñoom tamit il y a des pour leur rappeler leur responsabilité ci réew mi wax leen seen responsabilité seen responsabilité fondamentale mooy ñu fàttali Ousmane Sonko ni fii Sénégal la réewu nit ku baax la réewu nit ay gor la ñu réewu ay ay kilifa yu tedd dañu am aada aadawu civilisation teranga moom mu dem dugg ci ay salté ba noppi bugg nekk suñu président mais pourquoi kenn du poser boobu question on m'a jamais posé cette question là qu'est-ce que tu penses du fait que quand quand euh, comment dirais-je encore euh, a été pris dans un truc comme ça. Il n'a pas été président de la France. Quand François Fillon a été pris dans des bêtises de, de corruption, il n'a pas été président de la France. Quand, quand le président américain a, a tapoté, excusez-moi, euh, le, le, le, derrière de son, de son, machin, il a failli être destitué, il, il s'en est échappé. Quand et quand et quand et quand Et on ne pose pas cette question-là. Et pourquoi ça Pourquoi est-ce qu'on doit protéger ces gens-là Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une version de presse qui amène à poser des questions qui les dérangent. Il faut qu'il y ait cette version de presse-là. Il faut qu'il y ait cette version de presse. C'est pourquoi nous, nous allons amener la presse à y répondre. Celui-là ne sera jamais candidat tant que Man Mankouimen. Pourquoi Parce qu'il a fait trop de mal dans le pays. Il a fait tuer 17 personnes. Il a violé une fille. Il, a, il appelé à l'insurrection. Il a fait des bêtises dans ce pays-là. Yak Alalou Djambouri. Mais qui Deuxièmement, vous n'avez pas posé la question tous ces gens-là qui passent leur temps maintenant dañ ko assumer saaga sëriñ si wax lu bon ci jigéen ñi wax lu bon partout di ko ndamoo suñ ko waxee moom mu ni non man bokkuma ak ñoom te su waxee bokkuma ak ñoom ñoo ñun ñoo bokk ak yow Mais vous n'en parlez pas et on ne soulève pas le scandale. La grande marche devait être de, de préserver nos institutions religieuses. Sous a de grande marche sax waaw euh, a de diine ñu protéger ko. forum civil bi également ñi ngi woote ñi ab manifestation le 30. forum civil bi. waaw waaw man ñoom également ñi ngi woote ab manifestation le 30 décembre. pour quel motif vous précisez le motif. Euh, rapport bi bokk na ci mais ils ils n'ont qu'à appeler le 30 décembre ñu woote ci protéger sunu valeurs yi loolu laay xaar forum civil mais benn rapport bi nga xam ne wax nañ leen li ñu ciy def nañu wax lu tax cette bande là et consorts animée des délinquants qui son tapis ñoom ñu nekk fii Sénégal am ñu leen di liggéeyal di xas yow laa laajuloo ma. Mm. tout ñoom lan laa xalaat ci lii ma metti man. ni ñi ji njaaloo ay ay nit yoo xam seen yoon newul ci arène politique bi di leen ko jiiñ di leen fenal di fenal sëriñ si di yëkkate ay nit di ay violence verbale ci kaw sëriñ ak ko ñëpp di bugg yàq suñu diine mais posez-nous ces questions là qu'on y réponde qu'on leur dise ça ne marchera pas on va les combattre jusqu'au bout je vous assure man cotte tant que man koy mën Ousmane Sonko du nekk candidat fii parce que c'est de la pourriture excusez du terme d'accord waaw commissaire ça a été un plaisir euh, recevoir la euh, vraiment ma lay remercier euh, ci wuy bi ak ci disponibilité bi wax nga ni nga bëggoon wax yëpp tàggatoo nga. mais moi je vous remercie sauf que je me sentais mal en venant. vous m'avez redonné de la santé. la. En sortant d'ici, je me sens beaucoup mieux que quand j'arrivais. Vous vous êtes rendu compte. macha allah c'est même pas comment j'ai fait pour m'en sortir. dëgg na yàlla dolli sutura. amiin amiin tey yal yàlla may wér bu baax a baax gis naa ba ngay doog a yegg si donc euh, di la ñaanal jàmm fi nga toog man. Euh, dama la jox cër bu baax a baax te te te yow loolu xam nga ko donc di remercier également yéen ñi nga xamante ni yéen a toogoon di ñu seetaan di remercier la régie caw euh, ak Kit Junior pour la coordination la rédaction de Sénégal 7 yéen ñi nga xamante ni tout le temps yéen a safoo ay programme di leen jox dig daje ci yeneen plateau d'ici là portez-vous bien jaa ngeen